aja gay yi yéena ko gisandoo noonu tey nag ñu ngi fi euh si fi nga xam moy tableau seigne Babacar yalla def nak li ñu fi dajale nekul lo xamni ne lu ñu gënal la waye mbiri yalla la muy jëm yo xamni ne yalla dafa defoon ñu bokk ak ñom lamb yi di and ak ñoom guddeeg bëccëg subaa ngoon guddeeg bëccëg yalla def ñu juggé fi kenn ci ñom nak ki taxaw di adama seen magam la muy Baye Cheikh tay mbuur groupe bi gëna mag ci groupe lamb yi moy kër Baye Cheikh amul mbeur bu nek ikiri ki wala ikiri pata wala ikiri samba tan nekkoo fa amul keur bay cheikh keur bay seexum ñepp la di ziar ay père seex faala moom moom burijee ñom Omar Jaw may sa njaay fi jóge léegi ñepp ñu ngi leen ziar di ñaan yalla ñaan gi nga xamni mom lañ leen ñaanal ñom ñepp ñu jot ci ah, bay cheikh père djibi malaw maalaw Assane euh, Gueye Ousmane Mbodj Omar Gomis ah ñepp ñi nga xamni dal ñoy way daw ñu ngi ñaan yalla ñu jot ci ñaan yi yëpp yalla yërëm leen taxal leen aajana aadama lañ taxawal suñu mag la xarit la nee ko waxta waxtaan boo fekk soppi ko làmb <laughs> waaye tey comme que tey yàlla dama dem ñu daje day defoon nañ ko daal bu fekkee déwén ah dañuy baaxantal rek waaye dañuy ñaan yàlla rek yàlla may ñu xolu muñ ndax ñi fi jógee ay ay nee naa leen du yomb ñu am ay remplaçant léeg-léeg ma gis ndoo ku mel ni coonu gaal si àll bi wala ndoo am combat sama yaram day daw ndax du gis Baye seen ginnaaw ma xam ne ñii wéet nañ ma gis Pathiam dugg làmb gisuma Ousmane Boy gisuma Assane hmm. ma jooy ma xam ne ñii wéet nañ ñu dem làmb si àll bi gisuma Père ji Malo suñu côté ma xam ne am nañ lu ñu manqué tey ma ni oh, oh, oh, Thier Mbaxaan am nga xadar mais amoo doole mbër mi kenn la woon seen kër muy Omar hmm. yàlla jël na ko yàlla mi nga xam ne moo moom moo sañ te mooy xool la ko neex mu def ko hmm. yàlla na yàlla yërëm ñëpp ñun ñu fi des yàlla yàlla mooy xolum muñ ñu fi di leen ñaanal aadama tey yan kàddu ngay sànni si bis bi ak lan ngay wax wa keur Baye Cheikh ak nga xam moy fall mi nga xam lañ ni moy tetti leer bi di di japp ci bis bi. la leon yoon la nuyu di la ziar. Mhm. di la di la ñaanal jamm mhm. wa bis bi lima ci doon wax rek la ci wax. Mhm. man Baye dama ko doon joy waye lima wax rek. mënatuma ko joy nak sa suma ma dina gis Serigne fallu ba te dina gis malik Baye Fall. yow mi tamit dina la gis. kon mënatumaa joy Baye. Euh, weeru koor day lu diis ci man surtout fukk fani koor yi mhm. loolu ñi ma xam sax dañ koy xam ci man mhm. suñu duggee ci weeru koor mhm. premier jour koor bi ba keroog fukki fanu koor bi di jot yàlla mi ñu tim xam na ne dafa lu bare bare bare loo xam ne muy nekk ci man nag mooy suma rakk ji daf may manqué parce que bàyyi suma rakk la mais defut woon ne man su magam laa dafa defoon ne man way juróom laa bu góor bu musuma xam lu ko neex ak lu ko naqar bu amee lu ko neex baax na su amee lu ko naxar itam sama soxna la koy wax su ma ñëwee mu ne ma bàyyi bëgg na nangam mm-hmm. su ma ko ci mënee taxaw ma taxaw ko ci mm-hmm. waaw fi ñu toll nii tey nag mm-hmm. euh, mënatuma ko jooy nax waa kër Baye seex famille li ma waxoon laay waxaat man awma dara mënuma dara waaye mën naa leen a ñaanal te wallaahi azim biñ leen di ñaanal dina yëkk ci ñoom maa ngi ñaan yal na yàlla fay leen na yàlla taxaw leen yal na yàlla dolli man-man ba ñoom lépp luñ sumb ci kër Baye Cheikh ñu daan ko ndax lii ñuy def laal yoon dama gëj a gis ñoom li ñuy def nga nekk nit ba dem nga di ko fàttaliku at mu ne te fukki fanu koor mu lay jaral lu ne huit heures ci suba ba léegi ñu ngi ci buntu kër gi toog ñoom yëkkati seen doole def ci yëkkati seen amam def ci yëkkati seen ñàkk def may may gis ba gis président léegi mu ñëw fii ci ñoom wan leen ne leen man ci axlu làmb laa bokk awma lu dul yéen samay ndaw ngeen tey seen bés bi mënuma lu dul jóge Dakar ñëw fekk yow nga bàyyi sa yite yëpp yow laa yoon ñëw taxaw ñu di ñu couvriral dëkk yàlla mi am fay yàlla na la fayal boppam yaa xam lépp loo mébati yow ci làmb yàlla na fa yàlla yegg te la ko kontaan naa loolu sama jigéenu bopp yow sama xarit nga kontaan naa bu baax a baax a baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf kooku mooy Adama sunu mag lépp nee naa ko bu mu fekkee. ko làmb waaw loolu la sama jigéen la. <laughs> waaw ndax daa bëgg làmb comme